salaamaaleykum mbokk internet yu Feeling Dakar TV 111 média la voix des patriotes ñu àndaat ak yéen rek bopp xibaar yi ci bu naree neex bu baxee xeeñ day dëgg la euh, ndax itam ñi nga xamante ne si ñoo di gouvernement bu yees bi di Bassirou Diomaye Faye président de la République du Sénégal Ousmane Sonko premier ministre ñoom ñu le daal na di jëlub dogal rek ngir daal di wàññi njëgu mburu gi daal di koy jëlee ci fanweer ak juróom daal di koy indi ci ñaar fukk ak juróom loolee nekk nouvelle bu neex boo nga xamante ni si euh, dina daal di neex ñi nga xam ne ñoo di askanu Sénégal rawatina way góorgóorlu yi ñi nga xam ne ñoom ñu le ñoo daal di yor ay njaboot moom Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement nag Ousmane Sonko ñoom ñu le fas fas yéene noonu rek daal di saafara lépp loo nga xamante ni si moo di jafe-jafe askan wi waaye tamit daal di koy doon ci li nga xamante ni si moo di ay urgence sociale maanaam daal di wàjj dund gi nga xamante ni si dund gi dafa cher loolu ba askanu Sénégal ñoom ñu le di ko jooytu loolee sax daal di waral ñoom ñu rek ñu daal di jël seen ay responsabilité rek ngir daal di fàll ñi nga xamante ni si ñoo di patriote yi di Ousmane Sonko ak

bu nga xamante ni si dina neex bu baax a ba nga xamante si benn juróomi bi ñoom tamit bëgg nañ ba ku daal di wàññi ak nu mu ci mënti demee nguur nga xamante ni ñoom ñi leen ñoo fi teg day mel ni yëg nañ bu baax a baax li nga xamante ni si moo tax lépp loo nga xamante ni si moo jëm ci guerre daal di xeex lépp loo xamante ni si itam moo euh, jëm ci wàllum injustice waaye tamit daal di wàññi dund gu cher gi nga xamante ni si cher na loolu ba jéggi day wax sax boo demee marché boo fi boon ab junni amaana booy ñëw doomatal wala sax da jeexal tàkk kon day rek ñoom ñoo daal di fas yéene taxaw ci li nga xamante ni si moo di jafe askan wi daal di wàññi dund gu bu baax baax kon nag mu ngi noonu ñoo ko daal di déggandoo mbir moo noonu rek la daal di demee ñi nga xamante ni si ñoo di gouvernement bu bees bi ñoom ñu le jël nañu dogal rek ngir daal di wàññi mburu mu nekk loo xamante ni si neex na bu baax a baax askan wi mbokku internet yu 111 média la voix des patriotes Feeling Dakar TV lii la leen andiloo ñu jox leen dig daje ba ne ñoon incha allah jërë ngeen jëf après avoir conquis le cœur de tous les Sénégalais et Sénégalaises par des sourires radieux, rayonnants et extraordinaires. Chic Dental Stétique débarque à nouveau dans la diaspora européenne. Oui, Europe Tour 2024 phase 2. yéen ñi ko doon laaj pare leen waa Chic Dental a ngi ñëw fan la ñu jëm waa Milan Rome Torino Bergamo Genova maanaam Italie wërngël waa Chic Dental dinañ fa nekk du 29 avril au 8 mai bu ñu fa jugee Luxembourg la ñu jëm teg ci Nice Marseille Toulouse ak mbooleem dëkk yi ngeen bëgg ci biir France li ko dalee 9 mai ba le 16 mai 2024 adresse bi biir Paris mooy 13e arrondissement waaw waaw ak Chic Dental sa reetaan dafay gën a neex Chic Dental mooy reetaanu aljana pour plus d'informations vous pouvez nous contacter sur WhatsApp au